lan ñu ci waa amateur yëpp le 14 août fils de Balla ak Gora Sock ku ne xam ne nii combat boobu neex lay doon combat espoir la amateur yi seen xol seen nit ci woo Sénégal yëpp 14 kenn manqué Gora Sock de Balla ñu ci woo amateur yëpp.